mu aw moom lu ma jëndee xar tabaski keneen jógee fa la jëndal la xar tabaski tabaski weesu nga dellu si ne ko léegi danga may remboursé xar bi ma këlee jëndal loolu est-ce may leen li ñu fay ba pare weesu na il faut s'orienter vers l'avenir amee lu ñu kenn dara bailleur bi bu ñu interpellé dinañ ko fay tout de